ñaareel ba maam Khalifa gàmmu ndax maam Khalifa radiyallahu anhu dafa doon gàmmu ci sëriñam baayam maam El Hadj Abdoulaye Niass mi nga xamee ni moo fondé Niassène sanc fii 1911 tabaarakallaahu te njëkk muy sanc fii fépp fu mas a nekk danaan gàmmu waaye gàmmu niñ koy defee nii ñun lew na Niassène te loola yaatu ci lool. dégg nga ak ci njabootu maam Alaaji Abdoulaye Niass gépp ñu ngi ko doon na ci maam Alaaji Abdoulaye Niass maam Alaaji mi ngi ko jëlee Faas histoire bi laa lay wax 1910 la fi déparé jëm Faas ngir uti ijaazatul itlaq ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ni moom la bëggoon am ko ci tariqa Cheikh Ahmad Tijani am ko it ci Cheikh Ahmad Tijani bam demee gàmmu fekk na ko fa yoon wii nekkul yoon wu gaaw yoon wu yéex la woon ndax booba moyen transport yombul ndax dangay dugg gaal aki i bato ak i baax la yenn yi ngay dox ah oto doo ko gis fenn moo tax maam xali bi ngi koy wax ne tajuubu bihi barran wa bahran safa inun tubaari hububa riix suma alxawaariki alxawaarik jamu xaarik mooy joggare gëléem mooy danaan war sax ci gëléem yi ba mu demee nag Faas gàmmu fekk ko fa mu gis ne dañuy dajee ci zaawee Cheikh na Ahmad Tijaan euh, di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay euh, anachid yoo xam ne Mouhamadou Bousayri ak ñeneen ñi tagg yonent bi ah ci xarn rabi achara yooyu la ñuy dajale nag ndeysaan léeg-léeg nit taxaw jàng ko nit ñi euh, euh, wax jikko yonent bi kii wax tabeeg yonent bi kii wax may yonent bi kii wax dégg nga maam jikkoom ju rafet ji nga xam moom la ko yàlla taggee ci alquran te mënoon na kaa taggee lu nekk waaye mu tànn jikkoom rek taggu ko ca wallahi war nañ xam ne borom jikko ju kawe la te ku ko roy am jikko ju kawe te boo ci am rek mën na laa jàllale wa innaka la ala xuluqin azim baat bi pour nga xam waa innaka la ala xuluqin azim dégg day tagg yonent bi woowu yàlla tagg yonent fow nga jàng balaaxa waxoo waxu ko de ko indaka xuluqun azim a waxu ko dégg nga de wa innaka la fi xuluqin azim dégg nga de waaye daf na ko wa innaka la ala xuluqin la ilaha illa allah azim moo na ko xuluq rek wa innaka la ala xuluqin em fa waaye azim gim ci tegit kooku benen degré foora yonent bi lay tegtale yàlla daf na ko waa lim bëgg a wax bu doon ne jikko ju kawe jikko fa mu gën a kawee fas la wala naaru góor la yow yonent jikko bu nekkoon naaru góor yaa yegg ci kawam contrôler ko di ko maîtriser fu jikko ju rafet def lu rafet rek yow la ndax yow bi nga xam yaa yor laa jikko ju rafet loolu lay tekki waxuma nag laamu ibtidaa yi boobu mu am mooy laala innaka ala xuluqin mu ne laala laam googu def jumla ismiya loolu yëpp ci mu akkadaat yi ci balaaga moo la ko ay jàngal bu ko defee nag noonu lañ daan defee ci zaawiya Cheikh Ahmad bi ku nekk rek ak pàcc bi ngay taggee yonent bi buñ paree am ku jug firi ko buñ paree wëy ah maama laa lii nag eh, luñ luñ war a eh, toxal eh, yóbbu ko Sénégal ñu koy gàmmoo ndax kaa ñi ngi teral Alquran waaye nit ñi xamuñ la Alquran di wax amut wëy amut dara dañuy togg ñam euh, nit ñi toog kaa yi ter Alquran ba fajar ñu ñaan tasaaroo maam laa ji ne ba mu ñëwee 1911 nag la réformé gàmmam te gàmmu googu ba mu ko réformé ci la gàmmu yëpp réformé wa ba mu ñëwee macha allah ah jël hamze bu sayri bi kayfa tarqaa ruqiyaka al anbiya yaa sama an ma taawalat ha samaaw jël amin tadakurin jiiraani bi salamin muy mimiye bi waaw waaw di ko bu bu dee gàmmu la buy firi jël hamze bi bu ñu woyee bat buntu jeex mu firi buntu boobu ñu jëlaat buntu woy ba buntu boobu jeex ñu firi buntu boobu ba fajar ji xar bu ko defee mu jël burdu bi amin ti dakurin jiiraan bi di salamin nga de mazajta jamaan jara amin muxlatin bi dami buñ paree ñu kaamil bi buñ paree xan mu mu battale dénk taalibe yi ko defee nag tabaarakallaahu yeewi leen ba déwén nii moom moo ko fi indi ci réew mi nag eh, seen ñeseen nag dañoo amut ay waxkat te nekkuñ ay waxkat looloo waral lu baree baree bari Maam Alaaji Abdoulaye Niass moo ko soppi ci réew mi xaa xamoo ne fii ku doon takk jabar lu ñuy wax joxe guru xam lu fi woon foon poon poon nga daan joxoon ndaw si mu tasaare ko ay kilifaam ñu ne diw foo fóonal nañ ko moom laa ñu ne ko mu ne pondal vraiment lu tol ni sëy ak ni sacré ñu koy takkee sey non di ko ci di ko ci euh, manifesté woo di ko siiwalee xalal nañ ko def guru mooy ni guru pourtant doo ko dégg fenn si dem daaw nga sangee néew yi te loolu charia la laaj moo ñëw jëbbat saalum yëpp si dem te di ñu duñ ko wax ndax duñu wax kat te amuñu wax kat te gars yi léegi ku amul marketing médiatique ku amut waxkat yi nga xamante ni tabaarakallaahu ñoo lay sàjjal te sénégalais yi eh, eh, eh, ñuy wax rek boo tax gars yi du noppi nag koo xamee sa yëf yi wax a ko taal boo noppee rek mu fay maamalaaji bam soppee gàmmu gàmmam ci la gàmmu yëpp soppee koo léeg-léeg nga dégg ñu naan diw ah, maamam 1800 la commencé gàmm ak nangam waaye daal ni ñuy gàmmoo nii man defi naa ñëpp maam alaaji moo ko fi yëkk def wallahi di ko def nag waaye yàlla dogal nag mu jàngal doom ji nga xëy mooy xalifatul xaaji mu muy taawam moom la njëkk a gis ci doom tabaarakallaahu jàngal ko alquran mu tari jàngal ko xam-xam mu jeexal téere yëpp ba pare mu ne ko dama bëgg ndax ki ma la tuddee mooy yontu yàlla Muhammad dama bëgg nga jug liggéey ci liggéey bu rëy a rëy waaw siire nga liggéey ci lu rëy bu dara lënt lëntati ci dundam yonent bi ñëkk muy judd ba mu juddoo ba lim dund ah gannaawam lépp dama bëgg nga jublu fànn googu da nga maam ba yëpp leer ci yonti yàlla Muhammad mu ne ko Busayri Muhammad Busayri dëgg da moo la féetoo mag ndax ah, bokk leen sax jamono waaye dafa tagg yonent bi def na hamziya def na miimiya sa nawle la ci xam-xam ndax xam-xam mooy def ni nawle nit boo amul xam-xam ka am xam-xam mënoo fexe ba doon sa nawle ndax xam-xam moo tax yàlla wax malaaka yi ñu si jotal aadama aadama mooy seen sang kon fala la doomu aadama nag nekkee sang malaaka yi ba léegi ci xam-xam rek nag du alal du daraja du nguur du leneen maam kalifa nag tabaarakallaahu jug def hamziya ne anta kaw ni bahjatun wa bahaa'u wa tajallat bi nuurika zalmaaw dalee ko ba yonent bi nekkee ca leer ya nekk ca xijaab yi fukk ak ñaar danaa ci dugg fukki géej yi yi nga ni xuus na fa ak géej gu nekk ak eh, xijaab bu nekk lan la fa doon saabaalal yàlla ci ay axqaat ay ati at boobu at sax amul waaye noonu lañ ko mën a misaalee gannaaw gi mu dalee ci maam Adnaan maam Abdul Talib mu jur Abdullahi ba yonent bi gane àddina ci ñaari waajuram muy Sayyidatu Amina ak Abdullahi yonent bi gane àddina nekk ndaw ca Makka nam nekke ndaw lépp maam Xalifa wax na ko ci Hamza bi ba ba ba mu am vingt cinq an ba mu wanentoo ba muy def commerce génn tukki tukki mi nga xëy moom la mas a tukki gannaaw ga tukkee tut cent kilomètres sax doxu ko dem Cham ba mu am soxna ba yàlla yónni ko doom yam am xare yam takk ah jikko yu rafet yam yam incarné dugal ci nit ñi ci diine l'islam fukki at ak makka yim fukki at ak ñett yi am makka fukki at yim am Medina diina nubuwa gi nekk vingt trois ans ba ba mu génne àddina feebar bi bis la ko dal ah ñaata fan la feebar ba mu génnee àddina la fa xew ba ñuy samp xilaafa ba bañ koy denc ka mujj ca bàmmeel ba lépp maam xalifa wax na ko ci hamziya bi ah maam alaaji nag ki rek la tëral hamziya bu sayri ba nag ah, ku sa kuy wàlli xaan sa kër a tëggut te man rek la yàlla jagleel doom daan na ko bàkkoo léeg-léeg nag bàkku sant yàlla dafa am ak bàkku ndamu bo na bàkku sant yàlla la ah, man rek maa xam doom joo xëy maa ngi ko tuddee yontu yàlla Muhammad mu tagg yontu yàlla Muhammad man na Abdoulaye di baayam du gàmmoo téere bi naan sama Muhammad mi nee na Muhammadu rasulullahi nangam mu ne mbooleem ku dun man gàmmukat bum budun man ah daga doone sama doom nee na sama sëriñ nee na wala Mouhamed bu sëriñ nee na waaye sama doom nee na di ko gàmmoo maam laa jab laa ñees mu ne man rek maa ko am ñu ne ko yaa ngi bàkku mu ne déedéet damay sant yàlla wa ma bi ni'mati rabbika fa hadis ah kon maam Khalifa nag kon foofu la doon ne gàmmu te baayam daan na toog ci baytil xalwa ci jàkka ji maam Khalifa di gàmmu ci dundam maam laa jab laa di gàmmu téere boo xëy moom moo muy moo xam ne lu maraam bi muy jaabat xifaaran bi aadan moom la ñuy burda wala hamziya bi xëy moom la ñuy gàmmoo te nag hamziya téere barke la xaa xamoo ne bisu gàmm bu jotee mooy téere bi ëpp bu ñuy woy yonent bi yàlla Muhammad maam Khalifa maam Khalifa ak maam Alaaji Abdoulaye Niass liñ boole maye gàmm mën na 48 gàmm te gàmm gu nekk hamziya lañ fay gàmmoo kon bisu gàmm ñaata hamziya la ñuy jàng ci liñ xam 48 hamziya ci 48 gàmm. mooy téere bi ëpp bu ñu gàmmoo ci bisu gàmmu loolu ñu bari seetlu wuñ ko te mas naa oo maam moom maam Alaaji ne ko ah, xaw ma boo mas a tàgg yonent bi sallallahu waaye bii day ah bu bu yonent bég la mu ne ko benn bis dañ ko doon wëy ñu toog rek maam Alaaji génn ci bayti xalwa bi ci jàkka ji na fay leen lamp yi xanaa gis na leer gi yonent yàlla Muhammad mi ngi ñëw Mhm. ba mu paree la nag képp koo xamee ni ñu ngi koy wéy nga teewlu sa aajo yàlla dana ko faj ci barki yonte yàlla Muhammad ku naan nag loolu bokkaale la man d'accord naan loolu naa ko def te nekk bokkaale kat yal yàlla fajal ñu suñu aajo ci barki yonte yàlla Muhammad te yàlla ne yaa ayyuha alladina am taqullaha wabtaxu ilayhi wasila fu koor mën a nekkee wasila koor du jëmm de fu julli mën a nekkee wasila fu sarax mën a nekkee wasila boo demee si xaasiru saawi inna wasail yëpp ba indi ne nit ku baax mbokk ci waliyu man mën naa nekk wasila nga doxale ko sa sa diggante sa borom di ñaan ci barkeem ah waay waay dama ne fu yetu Moussa ba nekkee wasila xanaa nag jëmmi yonent bi moo gën a foor Moussa waxuma laa yadu wa nag kon kay eh, loola ñu naan bokkaale laak dafa xaraam man d'accord naa am na yoo xam ne duñ ci dugg di détaillé détaillé koo xam ne du la gëm mukk jaru nga ko indi argument maam xale mu ne boo indi woon argument wu addina bi juróom-ñaar ak moom gannaaw dalaa weddi ngir kañaan ngir diingat rek mu ne du fexe du fexe fexe ba argument yi nga mën kaa convaincre kon yonent bi sallallahu alayhi wa dara jaam dëgg-dëgg yàlla rek moo xam yàlla rek koo xam yàlla mi ko bind kon maam Khalifa nii doon gàmmoo ci kanam maam Alaaji 22 maam Alaaji génn àddina mu commencé gi bu daan gàmmu dañ ne daan takk ndigli sol ba xam bu bëla daan daaw toog de day wër baagante woyee woyee te nag woyam yëpp yi muy woy yëpp moo ko woy yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy juróom benn junni bayit ak lu teg lépp moo ko woy yonent bi ci mbooleem daane daaneel yi abajada baca ca euh, alif ba yaa mboolem xaafiye yi mu daale fa mbooleem baxaru yi mu woy ko yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun bu ñuy buur bët bu sedd dañuy jël benn xasida boo xëy di da ngay wax ne tey laa ko a dégg te am na ñoo xam ne dund nañu ba am juróom-ñetti fukki at ci ci ñeseen boo boo yëkkatee bayit bu ñu ne bii dañu ngi ko door a dégg kon lim def ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam néew ku ko def ci yonent yàlla muhammad mbëggeel gu foor la ko bëggaan daan na mahabbatu rasuli daa i wa dawaa i mu ne bëggeelu yonent moom moo feebar ñu ne ko lu lay faj mu ne mbëggeelu yonent bi rek maam xalifa bu weeru gàmmu teraan loo ko wax mu ne ba gàmmu nga wéy rek ñoom gàmmu rek ba gàmmu gi passé mënuñoo dégg benn soxla te dañuy yokku tabe xam nga yonent weeru ko la daan yokku tabe waaye ñeseen ak njabootu maam Alaaji Abdoulaye Ñas taalibe mi ñi ci aju muqaddam yi bu weeru gàmmu jotee ci la ñuy gën a tabe duñu wax déen mukk joxe rek xam nañ ne weer la woo xamee nii weeru euh, promotion la dafa laaj profité dégg nga dafa laaj profité te am na ñoo xëy ñi ci àddina bi tey ay buuri àddina yi defaluñu àddina bi dara defaluñ dara àddina bi te seen anniversaire bu jotee ah ñu jël mbooleem woykat yi réew ma ñu leen di tagg musiciens ya di leen wëy ñuy def spectacle ci ñoom euh, taal lamp takk dégg nga maam eh, rafetal yi ci mbedd yi ñu ne lan la ñu ne tey la anniversaire bu buur bi waaye buur boobu lan la defal réew ma réew maa ko defal sax lool loolee jooju yonent bi nga xëyee ni sëñ bu taxatoon ak moom rek doomu aadama du nekk bu nekkee doomu aadama du nite yaa xaree yem ah kooku kooku anniversaire bu jotee jot a màggal jullit ñi koy wax dafa mel ni ñoom waaye nag dafa mel ñooñu nag dañoo donnu dañoo donnu maqaama abu lahab mi ne woon du gis Muhammad mukk Muhammad rasulullah mun du ko gis Muhammad ibn Abdullahi rek girima Abu Talib ba ñooñu ba léegi nag maqaamu yooyu dañ kaa doon di gàmmu jotee balaa ñuy ngal-ngali rek di wax rek gàmmu jot bu gàmmu jotee daal ñu commencé indi hadis yi indi laay di xaraamal xanaa xoolal jëmmi yonent bi rek yow xam-xam bi nga véhiculé xam-xam bi ngay tasaare Muhammad moo la ko jàngal ja kon kooku soo saa ko waroo kaa màggal innamaa bu'ithtu mu'alliman loolu rek doy na kon maam Khalifa nii la doon gàmmoo ba cinquante neuf at mu nekk rek gàmm gi nii ko daan defee macha allah kon muy mel ni que tomb boobu ci maam Khalifa ci ak gàmm mu mel ni ñetteelu tomb bi mooy euh, lan laay dénk askanu Sénégal senegal gàmm gi nañ ko nañ gën a fonk gàmm ñu nga gàmm moo wuutelee Sénégal ak beneen réew. li yii nekk fii su sous raison bii coup d'état yi fay xew tremblement de yi fay xew li lay géej ga dagg ah léeg ay taw ngelaw yoo xamee comme la xewoon Dubaay yooyu yëpp ñàkk a màggal yonent bi rek la ñàkk dellu seen bopp ndax ku màggal yonent tube rek dellu nga sa bopp dellu nga sa cosaan senegal nag da fi dégg lu nekk déggoo fi coup d'état xam nga ne 2024 eh, bii ku la waxoon ne réew mi ah nii lay mujj sedd guy ñu def alternance ki falu falu ñu jox ko yëf yi réew mi kon ne di dox ku la waxoon loolu nga weddi ko daaw dem na ba nga xam ne ñu bari dañu doon souhaité pour armée bi jël réew mi ndax jàpp nañ loolu mooy jàmm yàlla ne déedéet yéen senegal du ngeen àggu foofu yéen yéen su yéen suuf si nga xam ne seen mag ñi dañoo baax bëgg ki nga xawee nii ku ko bëgg ma bëgg la man yàlla mu yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon yéen seen réew mi daya dara saxaabaay du tàkk de yi fi amit ci àdduna bi te ma koy dogal danaa ci musal seen réew mi ndax bëgg gi ngeen bëgg yonti yàlla muhammad kon kooku sénégalais yi nuñ gën a fonkee gàmmu rek nañ ko yokk nga waxi ñi nekk ci tuuti dañoo dugg ci terrain bi di football rek waaye bu ñu duggee ci di football wallaahi dañu xam ne foofu kër footballeur yi jàmbaar lañ xam nga supporter dafa yomb mu nekk si tuuti rek naan xamul dara mi ngi nii nangam nangam nañ la jox mayo rek ak ay godaas di dugg seenee bi. allé tuuti ngay def na taxaw waaye yéen man foofu mag ñi ñoo man gars foofu ñoo dàq jàng ñu ëpp leeru xam-xam waaw waaw jeexal téere ak ay diplôme moom <laughs> yooyu yooyu du dara tubaab ko man waaye xam-xam bu leer di dugg ci xol di jëriñ nit ñi mën a defar nit loolu mag ñi kuñ fi dugalanteer rek. xamal ne doo seen sax seen pënd kon nañ gën a fonk gàmm buñ ko dencal dara te maa leen wax leen képp ku bëgg a gudd fan na weeru gàmmu jot nga rey nag nga xool xam ngeen eh, Abdou Moutalib li tax mu gudd fan moo leen yoon yonti moo ci gën a gudd fan ñu ne dund lu mat ndax moom moo rayoon eh, téeméeri gëléem ya ngir jot Abdoulaye mi war a jur yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te maam xalifam nee na ah nuxirat wassa wa sibaau biha wa tayru wal aqwiyaaw wa doafaaw foofee nag moo tax nagu gaamu bu ko mag ñi rayaan dañuy wax ñëw leen jël ñëpp amul dañuy def muus rek ku ñëw jël ñu jox la ndax mu ne téeméeri gileem yooyu ñu jotee woon Abdullahi bañ ko rayee ca Makka dañ kaa ray ñëpp yem ca ñu am doole ñu néew doole ñanaaw yeeg gar yeeg ñëpp kenn du aaye kenn yonent bi moo jëmmi yërmande gi nga xëy kenn du ko aaye kenn xool asamaan laa mut boo xante yaa ngi xool sama wàll xamut kon yonent bi ku nekk daal fan nga ca rek yaa fa xemale sa bopp kon ku bëgg gudd fan na ngay na ngay tuur deret ci weeru gàmm ki juddub yonent bi maam xalifa am na eh, benn góor gu ñëwoon ne ko day ñun suñ famille bi dañoo gàtt fan trop bëggoon daal man yàlla may fan wu gudd am nañu wërsëg waaye dañoo gàtt fan mu ne ko ay del joxe del del rey eh, del rey nagu gàmmu rek kooku dund na lu mat quatre-vingt-quinze ans hmm? yow mi koy weddi nag <laughs> yow bul rey rek ñu xool <laughs> bul rey waaye ki nga mi ngi koy def it bàyyi ko mu def ko te wax dëgg yàlla daje ci barab di julli ci yonent bi di ko tagg di servi ay ñam loolu yëpp ngir bég ak màggal yonent bi nga bëgg a taxaw fee rek ne dañ koo wax da nga ngal ngali ba nit ñi ba ko waaye yow la ñuy ba duñ ko ba lu loo xay def nañ ko ay siècle mu jur mu jur njariñ ñeel nit ñi njariñ réew mi nga ne da taxaw jàng ñaari hadis ñette laaya wax ci réseaux sociaux yi tax nit ñi duñ ko ba duñ ba sëriñ ba yow la ñuy kon senegal yi nañ gën a téyewaat gàmmu fonkaat ko ku nekk nag foo mën a gàmmoo nang fa gàmmoo ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp ko bokk ñëpp ko bokk taalibe yi nga xam ne ñi aju te ña seen képp kuñ mayoon gàmmu xalifa bi renouvelé na ko nanga dellu ca gàmm googu nga doxal ko dégg nga waaye bu ñuy tëj burdu bi nag mu ne na ñëpp ñëw fekkee tëj burdu bi ñi nga xëy ngi dëkk kawlax ñoom mayu leen ngànt burdu bi na ñëw macha allah ba tëj bi kon lii mooy li nga xamee nii mooyam laa la moom laa doon lancé ñeel taalibe yi ñeel askanu senegal wane it Euh, nañuy delloo si méthode yi mag ñi daan yare nit ñi ndax euh, guddi gàmmu moyen la woo xëy nii moyen communication yoo wax ak nit ñi la ndax mënoo dajal nit ñi bët bu set waaye bu gàmmu jotee nga dajal leen waaye dañ leen waxal jikko yonantu bi xam ngeen ne léegi jikko yu suufee nañ trop sëñ bi boo taalee réseaux sociaux yi léeg nga dégg nit wax da ngay taf sa gémmiñ léeg-léeg gis nit jëf da ngay taf say bët kon nañ leen ni delloo si waat ci jikko yonent bi loolu la mooy gàmmu te def ay thème ci jëflante yonent bi ni daan jëflante même sax ñu gëmul yàlla ñu gëmul yàlla ñu daan jëflante ñoom ñu waxal ko ñi gëm yonent bi topp yonent bi boobaa nit ñi boo ci amee benn jikko rek mën na laa jàllale danga nga mën a jëflante ñëpp danga nga mën a wax ak ñëpp waaye bu ñu leen bàyyee xool nag du fidd bu ci yàlla nekkut jikko yu rafet nekkut ci rek seytaane dugg jikko yu bon dugg xol du vide de mi ngi mel ni boo jëloon benn bidon teg ko fii boo ko de des boo ci defoon ndox rek air dugg ci xol noonu la mel te nag seytaane day njëkkalante yàlla xol yi ndax xam ne ne xol bu yàlla ne même buy juum di def rëcc rëcc xol boobu na na leer na dana am mujj gu rafet ndax yu bon yëpp dana mujj bako waaye xol boo xamee seytaane ndar na ko képp mooy yàlla la koy defloo te mooy yàlla bu mu def rek encre lay tomb ci xol bi bu yàggee xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim kon ci gàttal lii moo nekkoon tomb yow bëggoon a waxtaanee di ñaan yàlla defal ñu jàmm ci suñu réew mi defal ñu ndam may ko suñu dirigeant yi nga xamee ni ñoom la yàlla jël réew mi teg ko seen loxo askan yi yaakaar yi yaakaar président Diomaye président Ousmane ak seen gouvernement yaakaaru yàlla bu mu tas yan nañ dem a dem ba nit ñi jugee ci yeneen réew di moodu moodu si senegal waaye Sénégal daawuñ yàlla buñ jëlati gaal yi di dem di uti te loola nag jub jubal jubbanti rek moo ko mën a def yal na yàlla defal ñu tawfiq ak taysir defal ñu dégg ak topp lépp loo xëy nekk juum naa ko ci kàddu yi ah, maa ngi koy jéggalu borom xam-xam yi nga xëy ñu ngi doon ñu ngi déglu lépp loo xëy wax naa ko muy sawaab ci yàlla la yal na yàlla bool yi yiw woowu di leen gërëm yéen ñi nga xamee ne yéen a ñëwoon jël si waxtaan wi tabaarakallah muy suñu siid yu baax yi yal yàlla def ko muy télévision yoo xamee ni day wër day daj àddina wërngal képp ñi ngi wax in uridu illa islaha ma wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa axir daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu